Balla gay numéro de lañ koy wooye moom mooy euh, la lion de géejawaay nee na nervi amul Sénégal wax dëgg yàlla xale yi ñee dañu doon liggéey ñu leen di fay seen carte lañu yor moo Modou juuf ñu dellu si waat nervi sax amul seet gars yi ñooy yoon nervi ñooñu dañoo yor seen carte liggéey te gars yi ñoo ne ñoom ñoo naan nervi lañu du ay nervi man xam naa ci ay mbër yoo xamante ne peut seen carrière demeewul noonu mais dañoo am seen carte sécurité man gis naa ñu doon defal ay ay formation yi nga xamante ne am nañ ko yow leer na waa Bamba Mbuub mbër yu bëri am nañu ay carte ci professionnelle war na garde rapproche wala affaire yu demee noonu ñun du ñuy nervi mais xam nga léegi Sénégal mooy manipulation bi daa bëri xam nga Sénégal da ngay ponkal ñu ne mbër nga am yaram ñu ne mbër nga nga jekk di entraîner conseil morom nga ne ñu ne mbër la déedéet mbër yi ay noobu lañ tamit maa ngi nii mbër la je suis maa ngi nii di wax ak yow ci njëkk ak ci teraanga kenn waxuma ci nervi wala nangam parce que lutteur professionnel la donc man daal ñi nga xamante ne yor nañ carte ma xam leen ràññee leen ci man jàpp naa ñoon duñ nervi mais ñeneen ñi nag ñu yor leneen ah wóoruma te dama ci dugg loolu d'accord nga ci utilisation sax arme pistolet boo ko yor da nga war a am euh, nga dem fi nga war a jaar dem fi nga war a dem nga mun a yor arme kon donc loolu baaxul sax ci ci image ñi di ko gis da nga yor arme loolu loolu c'est grave ñun Sénégal xamuñu loolu wala mi ngi noonu Balla Gaye 2 la Assane moo doon yëkkati ay kàddoom ci kii bi dàq na ni nerf bi amul ñuy seen carte lañ yor di liggéey nee na moom sax am na ay mbër yu ñu ci xam yoo xam dañuy dem ba yàgg ñu bokk ci kii sécurité yooyu ndax ball daa comprendreul système nerf yi wala dafa euh, jaawale garde rapproché yi ak nerf yi hmm. waaw. waaw de si benn côté xaw naa juum tuuti rek. xaw naa juum tuuti fu juume mooy fi muy défendre nerf yi waaw. waaw a ah, ci ñëwal waaw ñëwal. naan ñii duñu ay nervi yi ñu daa war a wax ñooñu ay nervi lañ. waaw maandu ca ñoom ndax moom du nervi mhm. buñ ne ko ay mbër lañ mu taxaw ni carrément ñii duñu ay mbër. Mhm. mbër la war a défendre mais warut a défendre nervi yi. Ah, te bi mu ñëwee dafa défendre nervi yi. waaw ba pare ni xam na ci ay mbër. kon dafa war a nañoo enfoncer nervi yi nervi yi dañ leen war a. enfoncer mais moom défendrul euh, nervi parce que nee na nervi amul. waaw ñoo ñu seen carte lañ yor. waaw di liggéey ñu leen. voilà kon moom mu ngi koy daganal mais wërtu wërtu jéem si ñoom dara comme ni mu waxee. Hmm. dafa war na ñii kat sama yoon nekkul ci ñoom xamu ñu mu doon ak lu leen tax a jóg. Hmm. ndax man gis naa fi ñoo xamante ni ay booy lañ ay booy yu ndaw naan fii ku fi taal dem si wetu policiers yi sol seeni cap ah est-ce que xëy na nervi li ko moomalee waa état bi moo tax ñi mu wut a wax ni ñi ay nervi la. non nervi nervi ñëpp koy am. li hmm. ñu jàpp nervi amul benn politicien bu amul nervi. ah saa njóogu mii koy lijjantil. nervi maa xaar maa ngi lijjantil kan nervi. foo may man mii koy àndal. kaaj ji mooy <laughs> day tuumalaate rek <laughs> man maay lijjantil saa njóogu nervi. kaaj ji mooy nervi waaw ah. il faut ñu dool si benn nervi non ñaari nervi nga war a am benn nervi day ndaw nervi mooy boo boo dee dem fenn ki ngay àndal pour muy dimbali si sécurité ñi nga dañoo bëgg ñëw nuyu la ñu ne ah, taxawal arrière dafa mel ni gaal gi bàll mbedd mi bàll solo fa la la bëgg kii loolu mooy nervi non non yow dafa mel ni mbedd mi bàll solo yaa ngi ko doon solo mooy garde rapproché bi nga jël ah. muy yore sa sécurité waaw kay kon sëñ Fallou euh, Samb hmm. nervi la sëñ Fallou Samb daanaka non na leer rek. sori bu ko de loolu dañ tudd nervi bi. waaw dama ne kon sëñ Fallou kon nervi la dama ne kon nervi lañ leen tuddee. mais kon nervi la moom garde leen tuddee ñoom ñëpp ay nervi lañ leen tuddee. ah ba si laay mi ak ñoom xaasim ñoom ñëpp ay nervi lañ leen tuddee maanaam nervi mooy ki yore sécurité. ma nga ci kii moom lañ non non ki yore sécurité lañ jàpp ni mooy nervi ñun baat boobu baat bi dañ ko yàq ñun xamuñu tur yi. ma ngay jàngale baat bi non xamuñu ko Assane sol nga ci mbeddu mbàll mi de. ma wax dama la xamuñu tur wi léegi nag ñoom ñoo ñu war a taxaw ñi ñii dañ leen di fay pour ñu contrecarrer ñii loolu moo fi am ñii si pick bi dañoo contre contrecarrer ñi nga xamante ni ñoo doon kii ñaari doxu ñaxtu ñoo amoon ñii dañuy doxu ñaxtu di ñëw ñii doxu ñaxtu kar leen ñuy xeex ñu yor seen yat di diir si tëri bi di dóor ngay gis léegi kay kon nañ ko bañ a tudde ay nervi nañ wutal lu ne ay tur ñu xam ko carrément ñu xam ko si Sénégal comme nañ defee ASP ASP ñëpp xam nañ lu mu doon léegi nañ fexee xam lan mooy nervi lan mooy garde rapprochée aywa alaaji noo gisee communication Balla gay bi nee na nervi amul mm, itamit wax dëgg yàlla nee na ñoo ñu gis dañuy liggéey nag waaw Balla de wax dëgg fa yàlla amul bàkkaar moom amul am Balla man tey <laughs> euh, bu ma ko doon considéré dama koy considéré comme xale bi nga xam ne kenn waru ko bindal dara kenn waru koo ŋàññ Balla kenn waru koo ŋaañ ci ay waxam ñi bu may ŋaañ ki koy laaj laay ŋaañ parce que Balla moom depuis ñu xam ko ba nëgë ni Balla kenn waru koo ŋaañ wax dëgg fa yàlla Balla Balla euh, mbër la nag bu mën a bëre wax dëgg fa yàlla. waaw bu dee ci arène bi moom amul morom def na fi kare <laughs> boobu bët ji am na ko bopp. <laughs> am <laughs> na ko boobu boobu jël doon kaat bi daal ko xaw ba dañuy xaw ma dañuy. day takk sol <laughs> takk seen sol ma dañuy dañuy dañuy sol. dañuy sol sol <laughs> takk seen sol bas sol zel xaw ma takk xaw ba am na nu mu ko waxee woon. Ah. boobu. keroog it nga ñaanal am seen daan ko dañuy leen. nee na ko dañuy dañuy jël zel. day day xaw ma lan masque takk. dañuy takk zel sol masque dañuy sol zel la wax takk masque. Ah, dañuy dañuy raxas. dafa jaxase woon xaw ma kii ba daal. Euh, ndaanaan boobu wax dëgg fa yàlla. Ah. Euh, ki koy laaj. Ah. xam nga mbir xew. Hmm. ah amoo kenn koo ci laaj nga dem ba ca Balla Gaye di ko laaj ci problème mu nerf ak problème mu réew mi. wax dëgg fa yàlla Balla tooñu. nee na ko juge bi joxe na àtte nee na. waaw di ko laaj laaj ko tuumaalam def ko mu ni noonu man nag gisuma kayit. gisuma kayit xam nga ah dëgg de xam nga fa yàlla. ah dëgg de wax dëgg fa yàlla son yu. Balla moom ku ko topp ku ne wala ngay wax ci ay waxam. ah di ci indi ay kiiw ak di ci leeral ak kërëb kërëb. non seulement yaa ngi koy tooñ. waa dëgg fa yàlla en tout cas daal ñi nga xamante ne bi ñi ngi laaj. parce que pareen saa yi da ngay gis gars yi. dañuy laaj ñenn ñi lenn rek lañ ci jublu mu ñoo la gën a xam ni ah kii ñuy laaj lii ñu koy laaj. Mm-hmm. amu ci xam-xam te du ci wax dara loo xamante ni bi lu leer la. Mm-hmm. mais dañ naan nañu ko laaj rek pour après lu ñu tiitre lu ñu def nii ne Balla nee na lii Balla nee na la parce que ñoom bu ñu koy laaj xam nañ ni ci toj-toj lay ne. waaw donc. kon Lamine war ko woon laaj. Balla ñu ngi koy ah. war ko woon a ñu ngi koy baal toj-tojam yooyu nga xam ni moom la. te di ko ñaanal itamit combat bi dañ ko reporté waaw moom ak giri ku ci ne da ngaa am blessure dootuñ mën a bëre ci seen prochain combat bi dañ koy maanaam bëttal nañ ko wax dëgg yàlla kon léegi nag bu ñëwee nag ci cadre nag euh, nervi yi moom ak euh, kii xam nga même nervi yi hmm. li ñu tuddee ñeneen ñi nga xamante ni bi ñooy kii manifestant lañ leen tuddee dañ naan manifestant donc ñee ñooy ñiy manifesté wu hmm. ñenn ñi waaw ñi leen di contrecarrer ñoom ñooy ñan hmm. parce que bu dee yow da ngaa dem bañ fay la xaalis ne la ñii di manifester fexeel ba bu mu am ta doo alkaati boo dee alkaati dañ naan policier yi. boo dee gendarme dañ naan gendarme yi. si yow moom manifester woo lan nga moo tax ñu ne leen nervi nga. Hmm. comprendre nga. même bu fekkoon ne da ngaa amoon carte professionnelle wala nga am carte ki ah, mais liggéey bi ngay liggéey tey liggéey bu nervi la li muy liggéey ah, donte am na ñoo xamante ne am nañ carte professionnelle ma si demoon yaa ngi dégg. Hmm. tey jii Assane Mese bu ci duggoon. di défendre kii waaw bu doon dañ ne fi ki am ñu ko fay ne ko pour mu kii booy. bu boobaa kenn considéré wu kuy kii mais dañ ne yow. nervi waaw fayeeku naa rek. waaw donc loolu mooy li nga xamante ni mooy lay ne maanaam profession nervi hmm. amut. Hmm. Balla loolu la war a xam maanaam nit ki du ñëw ñu jox ko carte professionnelle ne ko nervi <laughs> ah. amut. <laughs> yaa ngi dégg yaa ngi dégg. alaaji yaa ngi tax gaa yi commentaire naan Balla Balla amul bàkkaar. <laughs> man mi bu baax. baatu nerf yi li yaa ngi dégg. yaa ngi dégg maanaam duñ jox kenn carte. ni ko nerf amul carte bi. Hmm. waaw mais ki mooy ku ñu fay. waaye mais la ngay liggéey ci bis ba ak na nga koy liggéey tey ñoo ñu tey mën nañoo leen a fay ñuy liggéeyaat beneen liggéey ñu hmm. tuddee leen garde. waaw. yaa ngi dégg. Mm-hmm. Mm-hmm. mais ñii dangaa ngaa askan woo xamante ne dañuy manifester ñu ne la ñii contrecarrer leen. Mm-hmm. Ah. fexeel ba buñ ñëw léegi ci jamono jooj nag yow euh, nervi nga. nervi nga. Ah, waaw loolu mooy li nga xamante ne bii mooy. ku ne mën ngaa doon nervi wax maanaam kon nervi di du goro baraa mën na nekk ku kii. mën na ku sew koo xam nañ lay fay ni la. demal nga contre que def face ak. booy yi ah, borom lu xam nga numéro 9 bi kay lu sew la waaw. Ah, xam nga ah kooku nervi xam nga xam nga xam sax bi mu waxee autorisation port d'arme xam nga gis autorisation port d'arme moom mosumaa gis ku yor arme bu doy ni ñu jox la ko autorisation port d'arme arme boobu nga yor. Ah. kay buñ la koy jox kay xanaa <laughs> fetal bu ndaw boo xam da nga koy mën a. waaye arme de guerre nga yor ko. autorisation. <laughs> arme bu doy doy boobu. <laughs> non mbëri nag alaaji bañ leen dugalee ci maanaam wax seen xalaat ci réew mi la ñuy commencé def ay erreur parce que rakku giri bi non am na ay mbir yu xam nga ko doon partagé man rakku giri bi bu ma saan wax ci mën na communication non non mais da ci kii bi déggoo naan ñun mbëri duñu ay ragal ku xool ñu ñu toll xam ne ñun duñu ay ragal xam nga loolu da ngay xam ne communication non kooku jàmbaar la hmm. euh, euh, kii jàmbaar la naka euh, kii intellectuel bi ku waaye pigir intellectuel kay amu ci moom ah kay neel doomu déggul bi intellectuel la sax booy ñaa booy

<laughs> bis bu ñu la joxoon nga toog fii wax ñu doon leer léegi sax am na yu muy wax yu lëndëm yoo xam ne mënoon na koo leeral. <laughs> ah kon da jàpp ne mi ngi kii. <laughs> am na yu Serigne Cheikh Abdou Bara la tàmbalee la lëndëmal. Serigne Cheikh Abdou Bara Dolly Serigne Cheikh Abdou Bara Dolly li mu wax ni tey laa gën a mën a leeral mbir yi. dégg nga booba la tàmbalee dégg naa la ba mu waatee Cheikh Abdou Bara Dolly laa leeral. laa gëm sama Serigne la. Serigne Abdou Bara Dolly nga xam ne yaa ngi fi tuddee borom koppati bi. sama mi ngi noonu jërëjëf euh, Balla Gaye ñu ngi koy nuyu xam nga man yàlla mën nattu ci waa kër Double Less képp ku kuñ mas a bëreel ñoom laay faral wax dëgg yàlla waaye nag euh, moom léegi moom bàyyi naa làmb man moom dootuma leen seetaan mm, da seetaan dootuma jënd cest comme la ma jaraloon ah da war a jënd nag seetaan jënd ay kot ak di jënd yàq làmb banaa ko man banaa ko yooyu ma yàq maanaam maanaam jëmmi làmb ci boppam laa ba mm, làmb moom man ah, banaa ko ñi a tëgg làmb nga na banaa kan ñu tëgg solution déedéet banaa man de banaa la am. tëggoo la am tëggoo soirée. xanaa guy gi man daal man daal ñii moom buñ si buñ bëree masaraan. Ah, guy gi ak waa jooju xam alaaji mbay la xam guy gi day bëree ba léegi. bañ a bëree guy gi di kii guy gi moom su bëree danaa ko seetaan guy gi danaa la incha allah jaral nga ma sax ñëw stade ndax ñun nga bokk. am na keneen ak Kona ak Koña ak Bombardier numéro 2 buñ bëree dinaa leen seetaan. incha ah. allah ñu ah? nee duñ tëgg làmb duñ tëgg soirée yow làmb ñu soirée wuñu ah Assane loolu tax nga bëgg jékki-jékki la bëgg ñoo roof ay soirée ak làmb yow damaa gis ñëpp di ko def rek ah. waaw waaw am na solo de